RTV Dakar yéen ñi abonné abone leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jët sunuy vidéo jàngeen jëf beneen aaya bi yàlla indi ci li gën yéeme mu ne xam ngeen ne mu mooy wax yonent bi ne ko xam ngeen ne alquran maa ko wàcce ñu ne ko waaw mu ne xam ngeen ni barkee nga ci ñu ne waaw mu ne waaye barkeelu taxul ma wàcc bés nga gis loolu xam ngeen di alquran maa ko wàcc ñu ne ko waaw waaw mu ne xam ngeen ni barke ngi ci ñu ne ko waaw waaw mu ne waaye ma yëgal leen ni barkeelu taxul ma wàcce ko yonent bi ne ko ma wax leen lan ni moo tax mu ne nee leen li ma bëgg mooy li aaya yi ëmb ñu fexe ba imbi ko dégg nga waxin bi de li aaya yi ëmb ñu imbi ko waaye mu teg ca baat bu ne waaye ma yëgal leen ni doom ndey bu boot doomam boo ko ko bëggee feccil mbootu ma xamal noo koy feccee ndax daanu xale ba xaj na ca pour wax la la alquran du ko jóg ratatati mu jeex li yudabbiru ayati way wali yatadhakkar ulul albab moy façon bi mu la wax ni le ndey ju bëgg ko ko tekkil du domam waru tax nga danel dom ja waaye alquran itam bu fekkene yàlla def ko wàcce barke nek ci même bo ci don barkeelu xamal ni jéem a barkeelu rek taxul ñu wàcce ko nga ëmb lii mu ëmb nga imbi ko waaye boo ko imbeet fexeel ba maanaa yi bañ tasaaroo comme ni mu la woon ni doom ji ndeyam bëggul mu daan waaw mooy li xew ci alquran léegi lu ne ngay gis ku mu neex léegi nga firi alquran ku mu neex léegi nga wax lu la neex rajo yi lu ne nga ciy dégg bu ko defee ñuy xuloog ñun waaw yéen bu ñu leen invité du ngeen ñëw waaw ah, yéen itam bon bu ñu leen di seet pour ngeen commenter du ngeen mais wolof moo wax ni bu nit ñëpp fekkee dof jekki ah, bu nit ñëpp fekkee mais dof jekki mais am na koo xam ne bu ñu bàyyee ñëpp di wax moom mu noppi. waaw moom mu noppi parce que li ngay dégg ak li xew comme looloo leen neex nga bàyyi noonu waaw bàyyi noonu nga bàyyi bàyyi noonu fet yi ñu ngi ciy waxtaane yu yéeme wala léeg nit ñi yu bari dañ dul xam lan la fekk la ñuy daj buñ leen ko waxoon àdduna tukki waaw ak góor gu tedd googu la ñu di ko waxtaanee yañ ca xam ëpp na que benn njaboot benn kilifa la sax kilifa politique la di ko ñëw di laaj góor gi naan ko waa diw bi mu demee ba léegi yéegu leen ci moom dara day yónneewu leen ndaw bindu leen leetar parce kilifa politique la suñu caan ni ko déedéet mu ne ko def leen jëppi daf leen ne jëppi moo tax bindu leen yónneewu leen ndaw dañ cheikh ree rek ku dégg wax la waaw ndax fexe ngeen ba may sengoor sax bi muy dem mu tàggoo sengoor sax bi muy dem tàggoo na lu mu bon bon dem ci jàmm moom nag jotul tàggoo loo tax mu jëppi leen dégg baax na waaye loolu yëpp mu nga dellu ci la ma leen waxoon kii tëral pour reere la تفتح البانيكم كيترل بريرل فخل بانيكو تغدينا به قبل أن يتعشى بنا بيتي ديس هلا القرآن وخ وخ بويمي نمك دق دق دق mu teg kéemaanam ci xumb-xumb mag dëgg-dëgg mu yeewu te ñor du teg kéemaanam ci xumb-xumb ndax bari na lu xumb te demul fen kon nag laa yastawi alxabiis wala tayib walaw ajabatka kasratu alxabiis waaw fattaqu llah يا أولي الألباب لعلكم تفلحون من نعم أمي اللي حيو تي جامون نيت ني لو غنا خمب غنا ينغتو ني ديفاني لولا يور ليب ورك يال لي كوي دوخال دك دك دو خمب دفا دي يال لي كو دوخال دفا دا يال لي كو دوخال دفا ينو بركه واو كو ينو بان بو فيس دل دفا سي ينه يوبو بان با ديغا داو pan bu fess del nga yenu ko ta fas yene pan bi li nga duy nga yobbu ko di nga daw bo dawe ndox ma yeb dess ci yoon mais nonu lañ ñi yenu deug deug li ñen ñi tal taluñu ko parce que li ñu yor ñu bëgg mu raw motax ak yalla di ñaan wa kërëm yi pour que parce que bobu mushrikine yi dañ leen daan def tapage da bëgg rek seen pass pass yi wadd bu ñu jóg li jógee ci seen rexlaati chitaa yi wa sayf bay ñëw kenn dootul dégg sar yi ndënd yi jigéen ñi fii sañse bi borom dara yi génn fii ci seen terrasse yi di jaayo ñu indi lu mat ñaar téeméeri gëléem bu ci nekk ak la mu yenu waa kër yonent bi tus amuñu bu ko defee ñenn ñi nag commencé seen xol yi commencé di def nii ndax li ñu gis la nit ko ni ko wax leen ni du boobu de ah, bari na xumb na mais jëmul fen kon nag ñoom nañu am fayda fal yaabudu rabba hada al bayt waaw ah, parce que mooma ku ci lekk suur rek mooma ataamahum min joo seen jaasi yi li muy bari bari xeej yi bari bari ku ci yàlla bëggoon nga dee tey nga dee dara du la aar kon nag amanahum min xawf waaw wax leen ko ñu daal di commencé rek xam seen bopp waaw bu juróomeel bi mu mu ñaan ko mu ñaan ko c'est tellement important wax bu am solo la wax bu am solo la ngeen bàyyi ci xel moo ko ñaan yonent bi pour ci waa këram yi ñu def ko ci seen bopp mu ni ko miin ngeen miin ngeen dëkkale wax fu mu dëkkul miin ngeen dëkkale wax fu mu dëkkul waaye mag mu xàmmee day fexe ba bu wax jibee mu fexe ba fa mu fa mu jóge ñooña rafet ca fu mu jëm ñooña rafet ca xam loolu ni bari na yu créé ay problème taal kër fekk ay nettali rekk ko indi ndax la borom wax boo ko déggoon ci xikma xam lu tax doo ko nettalee noonu moo tax nag mu nuy wax nag waa kër yonent bi ni ko nee leen miin nañu sax dëkkale wax fu mu dëggul waaye nag li ma gënal mooy mag mu am xel ta xerem day fexe ba bu wax jibee ñu fexe ba ña wax ba jóge ci ñoom rafet ca نيوخ با ديم تي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب بكي ديس موي باكي نيتلي واخوما لا نيتلي وقتان موي ليب ليب القران باي ول دارا نيكو ليبون ليبون امون نافي دانام جارول يقم نلوي مات بس ندي يلا كي واحدة ليبون لبون أمون نفي من دان نام يلا نجارو اليق نلوي ما ما كوكاي نتلي لو خيوان فخل بابون نتلي بنوبي مصو خلم تلبلي دوغم li nit fekkewul li nit fekkewul xam nga am na loo xam ne ku ko nettali nit ba noppi mu saaga déggul la nga ko wax yow mi ko nettali déggoo nangam bañ ko defee sëñ Babacar nangam bañ ko defee Maodo ñoom diw ñëw ñu def lii suñu tribunal ba ngay jooy naan di saagay ndey ki la nettali déggul parce que li gën mooy ki lay nettali bu la nettalee ba noppi rek nga soxaat sa xel sox làbbaliwaat sa dog waaw ma nag ndax baat bi ma leen wax sox sa xol sa xel ndax dégg ngeen ko maanaam mag mu jël fetalu ñaari ngém sox ko dugg ci biir àll am na rab mu bëgg a jam waaye du n'importe quel rab bëgg na la muy jam bu diggee ci kër gi añal waa kër gi waaye xel itam nit war na koy sox mu dugg ci biir xaqaayiq yi waaye na fexe ba la muy jam indi ko waa pénc mi mën koo jariñu loolu dañ koy doye mais itam nettali ay nit moom la mësa dégg dans le temps Sëriñ Habib mi daan na ci jaaxle ci benn mag faatu na léegi moo nga ca bàmmeel ya ni lu tas kër gi rek mooma parce que discours bu conflictuel rek lay wax toujours bu lay nettali dafay mel ni ku lay taal wax la yoo xam ni sa xol bi day tàng nga bëgg léegi dem jëli yat am ñoo dem fekk rek dóor leen alxuraan bëggeewul noonu dafay bëgg boo nettalee nit ki xelam am lu mu xalaat ndogom feddaliku fulam ci jàpp li mu am yok lol la ñuy doyee nett li nit li xewon laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albaab moo tax ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء li lay jaaxal ci jamono doxin noo ko foogul nga xam na mu doxe woon démb te bu la ko nettalee sa xel leer nga xam nooy def te doo ca yàqu mag mu mel noonu di ko déglu baax na mais am na mag ñoo xam ne xale bu leen di déglu ñàkk la nga am ndax buñ lay nettali dañuy déformer yëpp ba noppi nag taal la taal la waaw bu ko defee kon nag yooyu mooy exemple yi yo xamni nit daf ci réfléchir alquran ñewon dem jox na len lu ñu reere ñi woon jox na len lu ñu reere ñi ñëw ëlëk bayil na len lu ñuy reere kon buñu ñu ca jotul ñi moomee lu jara xalaat la sa baay ak sa maam réeroon nañ ca reeru démb ya tey jox nañu la nga reer ci reeru tey yi yàgg ñi nga taseel ba dénk la ñi li ñu war a réere ëllëg kon ñi war a reer ëllëg buñ ca jotul yow mi ci tey ci yow la lam tax bi lams kon nag ci wàllu responsabilité d'abord collège avant may wax responsable yi mooy collège Surtout surtout collège yu père yi ak yu une responsabilité pour nga xam fokk ngeen

mi ëñ mbub mi ni ko xoolal fi ma dóor bal sëñ Cheikh xoolaat ko ni ko góor gi ana waa Uxud waaw di wane ni def na njàmbaar ba ñëw di wane naan xoolal fi ñu ma dóor bal sëñ Cheikh ni ko góor gi ana waa Uxud ana Hamza mu wàcce waat mbub mi bu jëkk taxaw fële xam ni nag liñ ko wax dégg na ko parce que ko xamni yow tay ji de ñu yóbbu la la nga nek shahid mo jekkoon ci yow nga ñew naan xolal fi ma bal xamo li nga yenu lan la ah, kon nak mag ñi RTV Dakar yeen ñi aboné gul aboné leen gaaw bu leen notification bi ndax moy tax ngeen di jot vidéo